nekk ci benn imbroglio euh, sànq nee nga président dafa initier dialogue pour dalal réew mi mais xam nga dialogue bi bu ko ki nga xam ne moom mooy principal euh, adversaire u euh, pouvoir bi buudee te lañ fay waxtaanee xëy na jëluñu en compte yëpp li nga xam ne moo mën a nekk ay préoccupations am est-ce que dialogue bi du jur voilà est-ce que dina jur dara ku nekk principal lan opposition bi ñu ngi fa. ku nekk principal princi ki nekk le principal adversaire du pouvoir. moom moom nekk fa Ousmane Sonko. déedéet oui mais moom bëggul dialogue est-ce que lu doxalin bu ma la wax ba léegi stratégie yam c'est pas une stratégie de de républicain soo gisee ñu créé S24 parce que dañu ne Ousmane Sonko daf ñu leer ni stratégie yam c'est pas une stratégie démocratique. man sonk pour rek ñu dem jël élection non wax na ko man lu may wax kay xanaa kay mën nga mën nga ko croire sur parole moom moo ne damay dem jëli pouvoir bi par la rue dama ñëw leen ñu dem jëli pouvoir bi mu ne ñu dem cooki euh, mortal combat dernier dernier cooki moom moo ko wax na Ziguinchor la la toog ma wax ko donc kooku nekkul si dialogue nekkul si dialogue donc soo koy sóoraale si dialogue yow yaay sonal sa bopp parce que moom nekku ci nit nag ci lu mu nekkul danga koy jàppee si lu mu nekk l'état mu jël matuwaayam pour neutraliser ko bañ ko bañ a mu yàq suñu réew mi mu indi fi fitna indi fi loo xamante ni musuñu ko am fii si réew mi mooy nit yi di toog ba nga xamante ni dinañu dem di taal këru jàmbur. mais mais bu boobaa seen dialogue bi seen dialogue bi lan lan lan lay jur xanaa débat bi ci troisième mandat parce que euh, euh, Khalifa Sall. Euh, wax na ko euh, junj na euh, mbiru troisième mandat bi Barthélemy Diaz boole na ko ci condition yi mu exiger ñu waxtaanee ko pour que moom mu mën a adhérer ci loolu nga xam ne moom mooy dialogue bi ak yeneen ak yeneen i kilifa jàpp nañu ne issue sorti de sortie de de de secours bi président de la République moo ko moo ko yor te bokk na ci moom mu renoncer à cette troisième candidature Euh, loolu mooy loolu rek mooy moom la moom mooy les. tous les points dina bokk ci dalal réew mi bokkul si point yi président de la wax na keroog bu ñu ouvrir dialogue bi que il est ouvert à toutes les discussions y compris le troisième man mm, mais man lu ma mën a wax mooy que euh, nit itam il faut que ñu conséquent avec eux mêmes euh, wax nga fi sànq Khalifa Sall moom yoon moo ko tënk ba nga xamante ni mënul bokk si élection yi loolu. yéen a ko tënk wala yéen a ko tënk. non yo itam yoon moo ko tënk eh, nekkul. candidat wala yéen a ko tënk wala yéen a ko tënkalu. ñu ñu ñu d' accord yow républicain nga même nga nekk journaliste républicain dafa am loi dafa am justice. yoon moo ko tënk ba nga xamante ni mënul mënul mënul bokk si moom ak ñeneen. Ah, ñoom suñu ñëwee ñoo xamante ne yoon tënk na leen te mënuñu bokk si élection yu ñëw ñoom ñu ne ah ñun de bëgg nañu dem dialogue pour que ñu ubbi yoon bi ñu def lu ñuy defaatee yoon bi ni ñuy defaraate yoon bi pour que ñun ñëpp suñ ci d'accord ñun ñu mën a bokk xanaa kooku kay du ñëw yow yoon tënk na la pour mënoo bokk yow nga ne damay dem dialoguer pour mën a bokk koo xam ne yoon may na ko mu bokk nga ne moom dialogue bi pour ma bu mu bokk mais c'est le monde à l'envers man banquier d'affaires la damay technique de négociation sama sama sama métier la loolu laa xam métier li li lay jar ñu xool nu muy jar ñu waxtaan di su war waree jar cent ñu wàcceeku bi ba mais loolu dafa bokk si loo xam ne principe boobu c'est man daf ma jaaxal c'est l'extrême koo ñoo xam ne mënuñu bokk ñu ne non dañu dem dialoguer pour bokk yow yoon may na la nga bokk troisième mandat non bul bokk donc ma ne yi il faut que ñu revenir à la raison